Zénith salle bi 7000 places la manam entier salle global bi yeb manam chaise yi scène bi suñ ko tegee coulisses yi ak euh, stage yi soko ko manam nit ñi lu ñu prévoir pour réservation manam siège yi ak force bi manam suñu ñu podium bi en normal c'est 7000 places mais maa ngi dégg ci yenn sénégalais di nan ak euh, ci commentaire nan 6298 6000 nangam sangam mais Bercy euh, Zénith du moins soko koy jël une salle de 7000 places après tous les normes. 7000 places non non ça dit dire 7000 places manam moy so tegee sa scène soo tegee sa scène dafa am ay chaise ba pare am force maanaam mooy ci digg bi ñu dul ñuy contenir 7000 places parce que salle yo xamanteni dafa am ay normes salle yo xamanteni xamante ku koy jël manam dafa am ay règles yo respecté manam règles de sécurité lu mel ay assurance nit yi fa wara nek est-ce que meun na contenir nombre de personnes bobu maximum parce que lepp dañ koy mettre xam nombre de personnes bi ñoo fi mën nekk ñu xol disposition de sécurité bi xol par rapport ak assurance ba pour en cas soo fa nombre de nit yoyu gañu gañu su amé amee kenn ñaanu ko yàlla assurance bi naka la koy couvrir.

ni ma tegee fauteuil ni xam nga déjà yatuna ni tay suma ma bëgg xam nga fi tay mën jël peut-être 20 personnes légui suma bëggé fi jël 10 personnes suma tourner tourné fauteuil bi ni bop fauteuil bi ni suma ko xëccoon ni ma xëcc bop fauteuil bi ni xam nga damay wàññi espace ma pousse ko ci kanam da fay wàññi salle donc il y a une possibilité de diminuer la salle donc Zénith mën nga jël 7000 places. mën nga jël 5000 places mën nga jël 3000 places muy 3 rideaux yi ma signifié woon rideau noir le rideau bleu ak rideau rouge. d'accord yow yaay tan luy jot mais Zénith est-ce que sénégalais mën na xam prix bi. prix ban. prix salle location salle naka lay démé location salle. bon ça dépend location salle bi ça dépend. ça dépend ni ngay jëlee salle bi ça dépend ban organisme moy jël salle bi Tay su mel ni comme ben genre promoteur privé bo xamante da nga ñëw di jël salle bi bokkul ak prix bo xamante tay ben association mo koy jël tay mën nga am benn association sénégalais bi fa nekk doon président association bi am na ay normes yu ñuy jaar par rapport ak mairie de Paris ba nga xamante ne dañuy am ay kayit yoo xamante ne dañuy am exonération ci yenn affaires yi donc bokkul prix ça varie et ça différencie. Euh, chiffres Zénith yi wax ko nombre de ñu nombre de places yi ñu jot a naka naka nga ko xamee est-ce que ñëpp am accès si si chiffres yooyu. Je xam nga récemment j'ai fait émission au niveau de la TV. Tout est là, Tunkara ma peut ko Tunkara ak Bijou le lendemain j'ai eu une surprise gis émission bi jël une ampleur par rapport à la réaction de Ngoné alors que l'émission bi concentrée concentré sur le Zénith parenthèse la c'est par rapport aux artistes sénégalais mais Bijou a eu un parti pris ku nekk xam ni Bijou day liggéey ak Faramareen musique manam muy Wally Balago Seck ñu bari xamnañu Tange aussi joge wayam ak Pape Diouf ba dem naa ba mané du liggéey mo ñu boole Pape Diouf c'est mon frère de sang mais hormis cela Tange est un Tange national Tange la bo xamante il est là pour tout le monde parce que Tange kep kuy artiste sénégalais liggéey na ak yow participer na sa événement lu ko dalee ci Youssou Ndour ba ci ousain Keita participer na sen ay événement ñima cité won kérok dégg nga ko muy kan qui le full événement Fallou Dieng de laa parti ne moitié événement ismaïl euh, Ismaïla Lo laa parti au moitié événement ak euh, Omar pen l'a xamante parti au moitié événement mais ginnaaw loolu képp kuy artiste taxaw Sénégal amul événement boo def au niveau national ou international te participer au ma ci sa communication du début à la fin avant pendant et après léegi nag Tange naka lay def pour xam euh, chiffre yooyu parce que dama bokk ci événement yooyu parce que Tange dafay liggéey ci benn milieu boo xamante ne milieu événementiel la muy milieu showbiz bokkul ak tey koo xamante ni da ngay ñëw dagg sa ticket nekk ci biir salle bi Tange mi ngi ci ginnaaw Tange mi ngi ci production Tange mi ngi ci lépp donc Tange mën na am ay chiffres yo xamanteni yow doko am Tange day fekkee fi ñuy contrat Tange day fekk fuñuy ñuy jëlee euh, salle Tange day fekkee fuñuy louer sonorisation Tange day fekkee fuñuy ñuy djé jee billet pour jaay ko kon Tange mënul bokk ak ben téléspectateur boo xam da ngay taxaw ni rek seen ay nit rek pour à peu près Tange day xam lépp à une semaine de l'événement Tange day xam ñaata billet la ñu jaayagum à deux jours de l'événement Tange day xam ñaata billet la ñu jaayagum ah 24 heures de l'événement Tange day xam ñaata invitation lañu wara war a joxe badge presse lañu wara accréditation lañu wara dama la bëgg xamal euh, Zénith artiste sénégalais mi ngi fa commencé jouer le 23 mars 2013 le 23 mars 2013 bobu Pape Diouf leader de la génération consciente le premier artiste bu a jouer Zénith de Paris bu muy jouer Zénith de Paris le 23 mars c'était un événement kan mo organisé won événement bobu mi ngi jaar ci Matar Diop bu subatel mo moo ay nar promoteur yu nek Paris biñu xamanté xamantee ñu expliquer wax leen ñu xol jamono joju statistique ci internet bi lañ doon xol ñi gis jamono joju pap Diouf était tellement présent ci site internet yi ci réseaux sociaux ils ont posé la question à Matar ki moy kan Matar bu mu leen expliqué jamono joju en 2012 mi ngi fekk Gambie je me rappelle très bien ñi ngi tok hôtel. Euh,

Euh, Zénithu Pape Diouf ñu waxtaan ci man ak sama frère Gomis bi néwon woon Face Dakar jamono joju ñu ngi doon lembé dëkk bi ñu liggéey ci liggéey bu am solo ñu dem Paris aussi liggéey ci def ko mu doon ben événement bo xamanteni ni macha allah mu doon premier événement bo xamanteni mo moo mës bir feesal Zénith de Paris ñu and ci wa Prince Art pour jox la ben exemple Zénithu Pape Diouf à 72 heures de l'événement, il y avait plus de tickets au niveau de Paris c'est la amone ben trafic bu garaaw parce que gaay jëndoon bi xamné ne bi amul après dañu dem fraude ko multiplier ko photocopier ko mo waral plus de 3000 personnes nekkoon ci buntu bi xex bi am fa gaay yi ñëw fa bañu ñu fa pistolet tiré ko xam nga Zénith tay euh, soko organiser yassine Yacine dama lay wax un exemple yow do jaay billet yow yassine yow ya fay salle bi pour nga organiser Zénith amo accès ci billet yi ñom ñoy défar seen billet ñokoy duggal ci seen machine ñom ñokoy koy seen ticketing ñom ñokoy lancer par internet fofu lañ koy jaayé yow so jëndé sa ticket tay ñëw Zénith soxla woo sécurité boy jox sa billet mu koy xolé

ay restaurant buur lolou motax ngay dégg ñi fay jaay billet dama koy jëndi ba paré dem tek ko fofu pour jaay ko pour sénégalais yoo amul carte bancaire pour mën ko jënd donc Zénith bala nga jouer mom su xolé machinam xamna temps de bien nga jaay su xamé temps de bien nga jaay légui so ñëwee la naan tant de bien nga jaay.

Zenitou Walisek, le 3 mai 2014 man Tange Tandian maa ko Freddy le 26 mai 2015 man mii maa ko Baba Mal, le 5 mai 2017 man mii maa ko Viviane le 10 euh, mars 2018 liggéeyuma ci à 100 pour de defal communication mais j'ai pris d'autres éléments yo sont ni ma fa nekkal tax chiffres ou wala chiffres qui est ko vous rek bu que Zénith xam euh, en tant que journaliste sur événement événements nga reportage sur tel artiste pour amener les statistiques da ngay mail toutes les statistiques. j'ai écrit cet article prends bien Performance des artistes sénégalais au Zénith de Paris. Pape Diouf, Daradi, Babamal et Viviane. À vous de juger. Après une étude de présence et de participation aux événements des artistes sénégalais au Zénith de Paris depuis 23 mars 2013 au 10 mars 2018 avec les cinq ténors de la musique sénégalaise, à vous de juger sur leur performance. Pape Diouf, le 23 mars 2013 avec 7437 places assurées dans la salle et plus de 3000 personnes dehors. Walisek le 3 mai 2014 avec 3986 places assurées. Daradi le 26 mai 2016 avec 4218 places. Babamal le 5 mai 2017 avec 3025 places assurées. Et la reine du Jollof Band, Viviane Chidit, le 10 mars 2018 avec moins de 2904 places assurées à vous de juger via les images. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de la direction du Zénith. Yangideg. pour plus d'informations vous les internautes rapprochez-vous de la direction du Zénith si vous êtes journaliste avec votre carte de presse et organe le Zénith salle du concert 211 avenue Jean Jaurès Paris 75 019 plan métro porte Pantin leur téléphone c'est 0033 8 99 23 33 77. L'appel vous coûtera 3 euros, quelle que soit la durée de votre opérateur. Numéro de téléphone généré par le Parisien à des fins commerciales pour garantir un service de qualité. Contactez-nous pour plus d'informations. Ce numéro, valable 3 minutes, n'est pas le numéro du destinataire, mais le numéro d'un service permettant la mise en relation avec celui si ce service est édité par le site parisien. Pourquoi ce numéro Le site du Zénith est là, www.zénith-paris.com. Qu'est-ce que soxla demal foofu non non damay ñëwaat une as ci ay vidéo non non vidéo est le 23 mars Pape Djouf. vidéo mi le 3 mai 2014 Wally au Zénith le 26 mai Father Freddy Baba Mal le 5 mai 2007 nañ xaaral nañ dem ret nañu la leeral Viviane le 10 mars 2018 donc dem len fi ngeen jël performance bi numéro Zénith a nga fa contact vous les posez la question ils vont vous répondre merci léegi euh, lan moo tax kon euh, ci plateau bi nga waxee am na bijou li nga li wax amul dama koy comprendre dama koy comprendre parce que déggante nañu après xam nga parfois ku abal beut mo lay won fi ngay parfois nit ñi dañuy quand tu es là pour les sénégalais ou bien quand tu es là pour une personne wax ko Diouf c'est mon grand frère de sang yàgg naa liggéey ak moom ma communication di ko mais je suis un sénégalais directeur de société yor entreprise di liggéey avec tous les artistes sénégalais plus particulièrement les artistes africains aujourd'hui je suis le représentant de New African Production qui se qui est basé aux États-Unis Les plus jëm ci communication New African Production par rapport aux artistes africains man maa où j'ai un contrat très bien déterminé Avec nous, li la culture sénégalaise la musique sénégalaise ce n'est ni Pape Diouf ni Wally ni Youssou Ndour ni Baba Mal xam nga tey non déglu ma rek xam nga li ñor mooy ñoom ñëpp ñu doon ben ku ci dem drapeau Sénégal ngay défendre ku ci egg Sénégal la ñuy wax comme man défendre mais ce jour-là Bijou dafa manquer professionnalisme bay leen ma signé ko ci pourquoi dafa manqué professionnalisme plateau on n'était pas là-bas pour Zénith ni pour Walisek, ni pour Youssou on était là-bas juste pour l'image et en tant que un acteur qui est présent dans tous les événementiels Je vous joxe benn détail bu ndaw artistes sénégalais est une musique nu mu à l'international parce que coût bi dafa cher promoteurs yi mënatuñu ko supporter parce que pas drainer du monde Europe est mu meloon démb ko tey deux ans wala trois ans gis artiste sénégalais bu ñëw nous ñu nous plus de 10 ou 15 artistes dinañu Paris Nous sommes saturés. Paris pour nga tu de métti da ngay changer da ngay jënd yére demander permission Tu chaque trois mois ngay demander permission Je suis là, plus de 15 personnes qui ont un billet d'avion Le billet bi 350 000 francs la louer salle fay artiste caché un hôtel fay leen trois jours lu mu 100 100 euros 100 euros jox leen que Paris artiste bu fa trois personnes à part événementiel amul ben artiste boo ko fa def ku dul Diouf ak Youssou Ndour et je répète mes mots lutax ma wax lolu xamna bu baax li ma wax parce que dama fekkee événement yi waa xam nga tay Bijou nena mi ngi fawone Bercy Wally Seck c'était le 3 mai 2014 mai 2014 bobu Bijou mi ngi won sen TV parce que ma ngi won sen TV mi ngi won sen TV di tourner ay émission yu ñuy wax confrontation té confrontation commencé wul won jàll bu baax dañ doon tourner di dugal ci boîte yi di denc mu doon collaborer ak Pape Diène pour ma rappeler ko la mémoire bi Bougane di ñëw Paris si Zénith bi xam nga ku mu àndal Safia la andal bi doon def entre nous Pape Cheikh Diallo la andal. ñoñu ñoo waroon def communication Bercy bii su fa nekkoon sax amul woon pour def reportage parce que émission confrontation bi mu doon def jotewul woon ak dara ak Bercy Wally Seck. musuma ko gis mu liggéey ak Wally boobu de musuma ko gis yow it musoo ko woon gis. Bijou yéen ko commencé gis muy liggéey ak wali ci Bercy bi bu commencé lañ commencé gis Bijou ak wali mais Bijou bumu mu sen TV gisuñu ko won wali confrontation lañ ko xamé won li arrêté émission moy mooy Ahmed Camara ak Galotal ba ñuy place du souvenir invité ñaari invité poser leen question ba gaay yi jóg di kérok nak Bijou moom manqué professionnalisme parce que dama cité Pape Diouf cité Dara ji cité Baba Mal cité Viviane mais Faramareen musique bu mu bokk la jóg rek défendre Wali Sek pour leeralal ko émission bobu on n'était pas pour Wali Sek ni pour Pape Diouf ni pour autre chose on était là-bas pour tous les Sénégalais Pape Diouf su defoon njombe jour bobu manako dafa def njombe mais Yalla dafa dogal zénitu Pape Diouf bokkul ak zénitu Wali. parce que ki teug Pape Diouf mo teug Wali ki teug Pape Diouf mo teug zénitu Wali ki teug zénitu Wali mo teug zénitu Baba Mal Viviane dong nga changé producteur ak ñu ma production ak bopam mais benn promoteur bi moo tëgg a Pape Diouf tëgg a Waly tëgg a Baaba xam nga loolu am fi woon artistes du yàq sama diggante ak artiste parce que su demee ba nga xamante ne soo waxee dëgg day yàq sa diggante ak nit kon artistes yooyu nekkuñu ci dëgg xam nga nit mën nga def salle bi am cinq personnes. wala am 20 personnes c'est pas important xam lu am important moy prestation bi ngay def foofu mais xam nga concurrence bi am ci musique sénégalaise fan bobu moko indi té dañu paré fan bo xamante dafa nek ci showbiz bi man gëm na ni nit ku nek demal nga def sa prestation def nga sa 3000 places defal les images de la prestation mais dañu yag dem lo xam ne feesaluñu saal ñëw di naan guichet fermé ba paré lolu dem ci sen fans yi fans yi ak yenen fans yi commencé di xeex donc artistes yi en personne ñoo wara arrêter arrêté ben, artiste moo fi gum Zénith je le répète muy Pape Diouf boko def guichet fermé nit ñi nek ci biir de 23h à 5h du matin Wally Seck ñëw def Zénitham de 19h à minuit 2STV mo yoron production bi Sala mo fa nekkoon El ndjay mo fa nekkoon bañu ñuy interdire sax journaliste yi kenn du jël balance bi vidéo du fa dug jour bob man ma yek ci bureau Sala di xuloog moom ma ko du ñu ba feulé ñew pour liggéey te duñ jël balance. dal nañu ci biir si Youssou biñu def balance ñu ne noonu du ngeen jël vidéo ma ko mënul nekk.

bon ça dépend parce que euh, yaakaaruma ko lu tax yaakaaruma parce que musique bi fu mu 2013 tollu fa tey en 2018 musique sénégalaise dafa Yakou en Europe en 2018 promoteur yaa ngi may déglu Kisma Jaxite yaa ngi may déglu Ibou Ñambaan yaa ngi may déglu Raxu yaa may déglu euh, Babacar Boma Vision yaa ngi may déglu ñu ci nous dañuy yóbbu artiste ba Europe mais dañuy am problème après ak artistes yi parce que coût bi dafa cher nous ñu doon déplacé déplacé tout nous lu tax ma la déplacé bu njëkk da nga doon toog un doo gis benn artiste sénégalais bu nekk Europe léegi artistes yi ñu ngi mel ni jam sàndaga ak Tilène Paris Sandaga ak Tilène moo tax euh, mobilisation bi demeetul noonu coup bi demeetul noonu crise bi c'est partout maintenant en Europe bu njëkk danga nga doon toog gaa Italie jógee fële waa Londres waa Suède waa États-Unis ñëpp dajee Paris ñu gëj a gisante gisante fête benn événement maintenant événement yi dafa bëri biir Paris xoolal année bii passé soo xoolee dañu tëgg ñun suñu gala. le 14 avril fête de l'indépendance du Sénégal le 22 avril Walisek Sek def Doc Pullman le 5 mai Baba Mal, def euh, Zénith le 13 mai Rahou Waron def Daara Il annule annulé parce que dafa mon décès le 20 mai Pape Diouf Momo dem Doc FL. Imaginez, 5 artistes un mois Bir Paris gars yi war a génn chaque jour war a changer yére mais am nañu dañu soxla xaalis dañu war a dund dañu war a yónnee seen kër mais finalement affaire bi day saturé ci ñoom ñoom artistes yi ñoo commencé à seen musique au niveau international nañu xool naka lañ koy programmer te bàyyi concurrence bi ñun on n'est pas là pour Pape Diouf ni pour Youssou on est là pour la victoire de la musique sénégalaise pour tout le monde ku nekk développe mais ku nekk xam ni que su ñu la nee événement le 20 mai ñi ngi naan 20 mai 20 mai bi passé Pape Diouf bi mu demee Doc monde, mais performance am dafa wàññeeku performance am dafa wàññeeku carrément parce que li défend fa defoon defu ko mais du ci Pape Diouf parce que les gens étaient fatigués plus de cinq événements munoo ko tegle di donc c'était ça performance de dafa wàññeeku te moom xam na ko wax nañ ko bind nañ ko et pourtant ci Pape Diouf la féete. mais y a comme y a concurrence bi dafa am et c' est malsain surtout si diggante Wally ak euh, ak Pape Diouf parce que bi nga bi chiffres yi ci plateau bi rek nga gis ci saa si Bijou jël défense Wally yow.

ba ñu bëre comprendre ñu ba ci ay fan su Pape Diouf méré won nañu Tange pourquoi Tange dem di jappalé Wali mais dama leen né l'importance la personne muy ndeyu Mindeli di Pape Diouf xamna kuy Tange Tange xamna bopam Tange il est là pour tous les Sénégalais ma jox la une anecdote Bercy Wali Sec 2014 biñ koy def jamono joju concurrence Pape Diouf wali Seck dafa tangone jër 2014 bi def Bercy Wali Seck dafa tangone jër Pape Diouf mo ma ne Tange jëlal billet demal nga jappalé Wali Sec bamou mu jeex ma ne ko si gaayen instant yi fansuwaale yi dañu foog ci yow la nek day indi problème mu sa way da ngay liggéey pap Diouf moma wax lolu demal zenith nga jappalé wali Seck événement réussir tay mok moog maxu bi teggone dañu amoon problème mu nel ma neel maxu fépp fu am blocage ci walu sponsoring su dee xalaat ni mën naa ubbi bi na ma woo ma jàppale ko ci pap Diouf mo def lolu mais est loolu déglu ma rek en 2014 bamay dem bersem 2016 man ma liggéey Bersi wali Seck ba mu jeex tak sénégalais tay suñ ci mënee am lu leen lèr ginnaw yalla mal ko

da ngay liggéey ci suuf di dem mais du sa bopp ngay wane ñu def caravane wali dans ma boobu mu wër àdduna lépp ci biir caravane wali dans ville boobu ñu ne dañ ma ciy gasal pax am na benn article bu ñu bindoon su ma rappelle si te rappelle xaw ma lan temps envoyé par Pape Diouf la tube de Wally Seck journaliste yi ne woon ca biir ñoo ko créé pour frustrer loo ma pour ma écarter wu pour ñoom ñu am visibilité Wally sekk ci boppam dem ba xam loolu bañ defee caravane bi ba mu jeex tag mu des benn jour ñu war a dem ren Wally Seck de laa la wax moo yóbbuwoon ay journal samedi ñu war a dem ren parce que Bintu Mbengue euh, Bintu sec sëram euh, jabaru Cheikh Mbengue da ko invité woon ren comme sëram la pour ñu ñëw foofu def caravane waali moo loué oto boppam ne benn journaliste du ma topp kenn ku dul Tange parce que moom donc moo fi ñëw di liggéey kon waali xam na Tange lu muy def ci carrière am ba may liggéey seen euh, le 4 juin 2016 maa ko liggéey biir production laa nekk man ba fi nit ba jeex man Bougane Gueye dani àllu ñoo ko defandoo Kiné Diouf yaayu wali Seck fekk na ma biir production ma yor sama ordinateur di liggéey ak tubaab bi di wax ak tubaab bi kon chiffre yi ma mën xam Bijou mënu ko xam lima ma wax Bijou mënu ko wax duma wax luma ma xamut damay wax dans l'intérêt du Sénégal waxuma pour chabaté waxuma pour len wali c'est un jeune artiste il est talentueux il est en train de parfaire son chemin il continue kan le 5 mai bi bu muy jouer Paris lekk naa avance bi yàgg na man lañ jox avance mi ngi ni VIP people kese ngay gis affiche 5 mai bi ngay naan la woowee. mais mais mais li ñu bëgg xam tamit lu important mooy euh, Tange. fu mu déglu ma rek déglu xaaral xaaral xam nga ñoom su la woowatee du question wo fi événement man je travaille pour tous les sénégalais ku ci am événement man ngay woo je suis pas là pour personne TGK communication du Tange Tandian suba suma ma dee woon keneen koy continuer c'est TGK communication day continuer di exister pour wax la ni que décembre man xam na ni Wally Seck day jouer le 5 mai signé na suma contrat ak Kisma le promoteur yàgg na. daaw bi muy def 22 avril man ma ñoom ñoo ma jëndal billet d'avion ñoo fay suma hôtel promoteur bi ak Waly Seck voilà non non le 22 avril daaw ki ko tëggoon ki tëggoon kis ma jaxite moo tëggoon anniversaire Waly Doc Pullman promoteur yi ñoom jël mais Waly moom mooy fay dañuy woo Waly ñu ne ko Tange la ñuy jël temps la ñu proposé ne leen d'accord bi ñu ñëwee aéroport jële ko Waly dafa ne Tange génn leen seen hôtel ma fayal leen benn hôtel ma ne ko non non li fay ngeen ma ko maa ngi

Pape Diouf li mu defagom Paris Wally Seck xaaju ko def Je la koy wax encore Pape Diouf moo ëpp Wally Sek nit au niveau de Paris Wally peut-être peut mobiliser Dakar mais Pape Diouf qu'il a réussir gom Paris réussir ko Italie réussir à travers l'Europe Wally Seck réussi. Ce ko a réussi réussir États-Unis Wally Sek réussir oogu ko Wally xam na man Pape Diouf sait, je man xam promoteur promoteurs ngi may dégg ci Pikini production laay waxee dëgg ma ñor Sénégal nag Wally mën na duy sii sas faire mu fees del Pape Diouf bañ ko mais Europe li fa pap Diouf defagum wali sek defagu wali xamna lolou wali loolu ko muy ko. léegi euh, ñi am ay bi ni le 13 mai mais duggaguñu ci bi duma ci avancer gum Ils ma ci avancer.. moy ma sur le terrain taxaw événement bi plan la su am statistique yi ma la